asalaamaaleykum mbokku internet la Dakar waa 221 ñi a baax euh, tey dellu si seen émission tragédie du sportif tey nag dañ ñoo fekk si benn ndaanaan benn jàmbaar benn attaquant boo xamante ne defe naa si wàllum championnat euh, gars yi namoon nañ ko euh, képp kuy suivre le du Sénégal xam nga ko muy Talla Ndiaye Talla Ndiaye nag dañ ñëw dalal ko rek suñu émission tragédie du sportif dañuy ñëw rek nuyonteeg moom fas yéene xuus ak moom si wàllum parcours bi nga xam ne jot na ko def si wàllum championnat bi ak si bitim réew salaamaaleykum Talla ñu ngi lay nuyu waaw asalaamaaleykum mon frère maa ngi lay fay. Mhm. di lu invitation bi. Mhm. di nuyu Sénégalais yëpp. Mhm. di présenté wu man la doomu Sénégal. doomu Xombol. Euh, jërëjëf Talla mais defe naa ne yow moom <laughs> suñu xool rek xel yëpp day dem delluwaat ci wàllum euh, bii bi nga xam ne dugaloon nga ko ci wàllum euh, seen final bi nga dem doxal ak ak Casa mais laataa ñu yegg foofu yëpp dañ lay bàyyi rek nga wax ñu fan nga jot jaar ci wàllum football avant ngay dugg intégré ci wàllum championnat bi. ah bon football nous ma si comme gars yi ni ci duggee nii rek nekkoon élève tëréewul di déconné xam nga di daw jàng ainsi de suite xam nga forcément waa gaale ne dama bëgg jouer football mais mu nekkoon ay moments yu métti aussi mais finalement après xam nga ci laa mujjee am benn waxtaan ak sama papa aussi ne ko football laa bëgg pourquoi pas nga jéem ma bàyyi ma dem jouer ji mhm. après par la suite ci la ma bàyyee ma ñëw à Dakar mhm. avant ça nag moo naan doon jouer xombol parce que fa laa débuté aussi école football mhm. commencé fa jouer seulement après mhm. donc ñun su la déggee si biir wax bi bu wax euh, doomu xombal nga xombal nga nekkoon. waaw doomu xombal laa xombal laa juddoo fa laa màggee. Mhm. yaa ngi fa doon jouer ban équipe. équipe nawetaan maa ngi doon jouer tey sama koñ. Mhm. sama koñ euh, wax ñu si wàllum parcours bi nga xam def nga ko si euh, équipe boobu. bon mais Guney tey Guney tey. waaw Guney tey waaw <laughs> bu koñ la woon. aussi nañu nekkoon équipe boo xam ne amuñu woon doole aussi parce que bëriwuñu extraordinaire Mhm. du coup suñu kër rek man ak sama benn frère ñoo fa nekkoon te suñu papa fa la nekkoon aussi ñoom presque ñoo créé équipe bi. Mhm. du coup xam laa commencé di jouer mais yeneen équipe parce que am nga talent léegi da nga war a bi. Mhm. du coup ma ne non non sama koñ laay jouer. parce que affaire de nawetaan la affaire de koñ la aussi. waaw mosuma dem feneen nag sama koñ laa bëggoon jouer parce que ah, amul boobu moo nekkoon ci man. Ah, muy daal boo demee si yeneen koñ sax sa waa koñ la lay sa waa koñ la lay xeer. loolu moo taxoon ma fa doon Euh, ba nga fa jugee tamit euh, fan la moo laan Dakar sax avant nga ba nga jugee euh, fële nga xam ne mooy xombal. bon Dakar li ma fi indi mooy dama commencé woon di jàng aussi sama papa bëggul woon aussi ma bàyyi jàng bi ndax football chaque fois moo ci forcé par la suite nag ma commencé dem ba di déconné di daw jàng affaire yooyu sama profit di ko wax. Mhm. donc problème commencé am. ma ne ko man dama bëgg dem jouer ji parce que boobu nit ñi ñu may wax ne ma am nga talent sama professeur EPS dama ci insister. Mm-hmm. mais pourquoi pas ma dem tenter mm-hmm. mm-hmm. te sama papa tamit ancien joueur la woon jouer na raay jouer na fépp presque. donc ma ne pourquoi pas ma dem tenter sama chance loolu moom ma indi Dakar mais xawoon na métti trop avant may ñëw nag. donc bu ñu la déggee si biir wax mooy maanaam euh, football bi da ko doon. waaw dama ko doon waaw. waaw naa dama ko doon parce daa maa ko gën ak fi ma jaar préfet jaaru foofu mais seen jamono. ñëpp am nañ ko mm-hmm. parce que joué mm-hmm. la. Mm-hmm. mais euh, ñu ngi lay xamee tam si ñaata lan moo loo dugal ñaata li bon ñaari tali mën naa ni amour moom fa dugal aussi parce que dama nekkoon xale di seetaan nawetaan di gis ñaari tali ñu ko jël ay titre ñu dégg ay Yoro Lamine Ly léegi loolu rêve la woon aussi moo leen gisee xam nga man ne non pourquoi pas sama xel bu ñu demee Dakar rek automatiquement a joué mhm. c'était juste ça ma sax ay nekk beneen équipe mhm. parce que boobu début loolu la woon ñaari tel laay joué rek loolu pour man lu réer ci man aussi mhm. loolu moom indi Dakar nag ma ñëw automatiquement di mu intégré ñaateel. mais naka nga def intégré ñaateel ak euh, dirigeant nga def ba parce que ñaateel du n'importe quel la ñuy jël <laughs> waaw c'est vrai ñaari tali nag dugg dugg ñaari tali bëgg nañ ko xam waaw sama ñëw ñaari tali sama benn euh, tons moo dëkk foofu mhm. moom foofu la teer la aussi mu dëkk ñaari tali vraiment ma ñëw fa après ñu boole ma moom ma nekk si moom après ci leen ma yóbbu ñaari tali mhm. maa ngi ñëw fekk fay test mhm. donc ñu nekkoon ay nit ñu bari aussi boobu maa ngi doog ñëw comprendre ma dakaar si yëmbul ma ne donc kon du ma bàyyi suma dëkk bàyyi lépp pour ñëw dakaar donc damay rayante wane sama bopp xam naa ne talent bi mu fi aussi mais fii Dakar la donc boo imposé doo joué ci équipe bi. Mhm. ma ñëw tamit yàlla def test yi di jàll may bokk ci effectif bi ñu may téye ba yàlla def ma bokk ci effectif des joueurs yi nga xam ne mën nañu téye mhm. ci équipe bi. kon tey su déggee da nga ñëw intégré si junior bi junior yi wala si senior dama ñëw si cadet yi laa ñëw. cadet yi nga mhm. ñëw maa nga fàttali sax ay place classe soloon dama ñëw coach bi ne ma lii du joué fii affaire yooyu. donc mën na ko mën daal yi laa am par la a sax may daal. moo coach mu jàppale ma aussi trop parce que xam na ne am na lu nekk ci man donc il suffit que mu gën ma yokk dara rek mën naa nekk hmm. mais tey ba nga soog a dugg ñaatale mu nekkoon un rêve tamit eh, tey est ce que amoon ay trac ak ñaatale seen supporter du ñu mel xam nga engouement bi foofu en tant que jeune nga ñëw tamit eh, sa rêve tamit nga ñëw eh, mu doon réalité tey yan yëg-yëg nga dam am foofu non mbégte laa fa am parce que dama doon dama ñëwoon ak ak xol parce que dama dama bëggoon aussi mais bi ma ñëwee dama fekk ay samay moroom ñu dëkk si dëkk bi dëkk foofu ñaari tali aussi nekk ay booy am talent. ma mhm. xam ne fii su ma imposé wu sama bopp rek. du ma mën a mhm. naa wane sama bopp di nekk si man ma génn ko pourquoi pas ma ñëw tamit imposé tamit loo xam ne tey course bi dama gis vraiment am ci man confiance ma trop jàppe ma mhm. comme doomam aussi. tamit rusoo wu ma ko benn li ma waroon def yëpp def ko vraiment. def benn passage bu extraordinaire. match junior yi naka la dem demee. bon match junior yi moom.

moom comme que doomu laa woon bugguma dem ci senior yi. dëgg la loolu la léegi damay jouer parfois damay jouer samedi dimanche ñu convoqué ma ci senior yi. Mhm. ma dem jouer yi parfois doon doon nii day jouer fii. jouer fële donc ñoom ñaar ñëpp ñoo bëggoon aussi. dëgg chaque match xam nga dama leen apporter loo xam ne tey jii donc dañ ko doon sind ci man. dëgg la loolu moo tax. mu nekk euh, rêve nga xam ni defe naa ni euh, kontaan nga si bu baax a baax mais tey ak senior bi tamit parce que euh, ba nga ñëw da nga def feuille flamme. don dugal jël ay attaquants yu mag di leen teglo tegloo ci bam en tant que en tant que un jeune boo xamante ne ba nga ñëwee ñaatale yàggul mais euh, def nga fa lu rëy rëy wax dëgg yàlla mais tey wax ñu tey sa intégration ci senior bi naka la demee. waaw sama intégration ci senior bi mooy comme li ma la wax rek nekk cadet di jouer di ñu may surclassé senior. Mm. di ma surclassé junior aussi coach ci senior bi di ma bàyyi xel. Mm. donc may jouer après ñu am quelques boy ñu ñuy jouer ay match amical ak ñoom après ci laa jouer coach bi gis ma invité ma benn match suñu match senior yi may ñëw di entraîner ñoom parfois parfois ma delluwaat ci junior su ma rejoué après donc année bi jeex gars yi ne ma dañ la boole ci joueurs yi nga xam dañ la yégal ci senior yi si noonu intégré ñu defoon benn contrat stagiaire mën naa ne sax xaalis c'était pas important parce que ay trente mille francs la woon dëgg la dëgg juste man moom amoo na nga na nga nga joué quoi joué aussi waaw naa joué weekend ma dem xombal wane na ñaata laa nekkoon dëgg la ça fait plaisir mais tey championnat bi ban année la ak tey euh, ñatt match nga fa jouer bu nekk yang kay japp ou bien euh, bi nga dugal fofu tay bon mën naa li ma bokkoon xayma. waaw li ma mhm. dugal ci biir fofu bari na trop. vraiment parce que ñattel ma ngi fa won depuis 2009 la fa nekkoon. Mhm. presque luma xam lu bari fa laa ko xamee. deug la donc parce que ñom ci la débuter son petite catégorie. Mhm. mais aussi bu championnat bi jeexee dama doon dem jouer na nawetaan jouer na Dakar aussi nawetaan fii. donc par la suite foofu tamit muy parcelle unité interval ba Dendal. Mm-hmm. mu nekk équipe équipe bu populaire aussi. Mm-hmm. donc mu ñëw fa ci situation yu métti. toogoon 2003 ba 2011. Mm-hmm. amuñu ko dëgg la donc mu ñëw fa jël nañu première année bi. deuxième année bu mu nekk meilleur joueur zone bi. vraiment. def vraiment boo xam ne am fa tour aussi. après ci laa delluwaate ñaatali. dëgg la mais ñaatali moom dañuy ñëwaat juste rek si final bi nga xam ne doon ngeen ko joué ak euh, ak Casa Sport tey nga dugal. bii boo xamante ne def naa ni ba léegi euh, gars ñu ngi koy fàttaliku lan la la def tey yow. non <laughs> nga dugal bii bi nekk booy bu ndaw xam nga. <laughs> ay vidéo ba jaan nga ñëw bokk ay terrain ay vidéo ba jaan ay joueurs yi extraordinaire euh, tey bii bi ba nga ko dugalee tey lan la la yóbbu quoi motivation bi. non bii bi ba léegi man sax man du ko du ko fàtte. Ah, waaw waaw ñun ñi xam ni ay supporter la ñu woon dañu toog kër ko seetaan. Mhm. nekk si biir maa ngi di reyante sama bopp ak final bi niveau bi mu nekkoon aussi. Mhm. ñëpp xam nañ ne ñaari tali Casa loolu bis la. dëgg la donc. stade bi stade bi feesoon. waaw genre mhm. événement yi surtout genre événement yu mel noonu. Mhm. rêve la pour nga wane ci sa bopp. dëgg la pour sa histoire aussi. tamit ma nekkoon ci ma nekkoon ci benn lancé ci biir championnat bi après moom fracture. donc ñëw ba demi finale donc may doog reprendre daal. te demi finale bi may joué sa wéruma parce que dama demoon contre Jaraaf ci loxo. def opération.

Euh, tay euh, nga nek un jeune bu doon rêvé jouer ñaatali nga ñëw accomplir ko tay ñu né PIP nga ñëw am sélection U20 tay qu'est-ce que ça vous fait. non mbekté parce que man bi may bi may débuté je pensais même pas que ay sélection yi ak ay voyage ma xalaatuma ko woon. Mhm. juste amour football bi dama ko plaisir la ko doon def mais bi ma demee nag ba xamné donc affaire yam mi ngi avancer ma ngi am ay sélection ay proposition ñu woo ma équipe nationale et tout laa ma ne ah. affaire yi nag na sérieux quoi baal ma concentré wu parce que lii war naa si mën a am xaalis war naa si mën a góorgóorlu aussi mhm. sama papa tamit ñoom ñu mhm. ñoom ñëpp dañoo bañoon mais après bu ñëwaat tourné di ma poussé pour ma ñëw mhm. laa xam ne nag les temps quoi ma concentré ci laa ñëw accéléré affaire yi nag si nga joué nga joué ak U23 bi waaw am naa sélection u ak U23 naa kon tey la la moo des. <laughs> à prime. ah je même man ak euh, Daouda Diop mu lay wax. Mhm. ak ñu aussi. dëgg la mais finalement mujj wu woon parce que ñu joué benn final. Coupe Ghana mhm. def naa sélection yëpp daal. dëgg ñu gis tamit euh, si gana bi dañ fay ñëw ba nga jógee ñaata dem Ghana Ghana nga dem. Mhm. Euh, sa contrat ba ngay dem Ghana naka la demee ak waxtaan beeg yooyu. waaw ak parce que Sénégal moom tam mën nañ sa euh, jour bu amee contrat sax ñu bañ la bàyyi. waaw gis nga parce que contrat bi moom bon mën naa dañu joué il faut waa Ghana. Mhm. ma nekk meilleur buteur euh, équipe bi par la bari mais bu njëkk sama rêve woon sax Afrique wala ay dëkku naar yi parce que amoon naa ay proposition non defe naa ñu bëri moom mere woon nañu sax si dem Ghana parce que bon ñu ngi dem xalaat nga dem fu gën a sori foofu waaw parce que dama mooy proposition yoo xam ne yoo xam ne ci la ak ak mais bëgguma koon jël sama mhm. rêve après dem joué woon en Mhm. ainsi de suite mais après boobu j'étais jeune xaw xawma dara aussi xam nga parfois nga perte bu da ngay xaw a réer doo xam parfois ngay def ay mauvais choix yoo xam ne parfois waaw mu lu mënul ñàkk si àdduna mënul ñàkk mhm. parce que boobu nit ñi ñu topp agent ñu lay topp demal fii bul dem fii expliqué te tamit bon euh, amoon après euh, dernier moment dama amoon fracture aussi mais bi génn mhm. donc après su ma fracture la rek waaw ma nag ma defee ne ma après du ma ko moo tax choix boobu ma jël ko xawoon yàkkamti aussi Mhm. parce que bon proposition c'était que je jouais jouer année. Mhm. après ma dem Belgique. nga dem mhm. après ma suis un ci après je aussi. équipe vraiment. donc bu équipe bu nga euh, deuxième division la formation formation parce que business est businessman aussi. pour parce que talent mais je équipe euh, équipe ba tableau bi. ñëw mm-hmm. yëgal ko. man ak Daado nekk finaliste Coupe Ghana aussi. Mm-hmm. am ay proposition ba ñu am suñu visa yëpp. donc après fan après ñuy dem mu daan nañu donc il faut ñu taxaw jouer Coupe d'Afrique bi après doo ko dem. Mm-hmm. après ci la problème yi commencé quoi. après ci lañ ci lañ. ah business man ngeen amuloon ah, affaire <laughs> ba fa gis dama gis nañ tamit nga Espagne tamit sa Xetafe euh, je dem nga Xetafe joué fa. waaw man dem naa Espagne aussi. Mm. parce que au début bu ma jógee Ghana aussi automatiquement dama amoon problème ak club ba léegi mm. moo a mm. ñëw wala ma voyage toog. aussi parce que def naa Xetafe après ma jógee fa diggante Xetafe ak Leganés laa amoon ñaari proposition yoo xam ne waroon naa fa signé. aussi mais club bi tamit nanguwul bàyyi comme que dama nekkoon ci sous contrat aussi damay xaar affaire tardement yu bari am ci. dëgg la après par la suite ma ne xaaral ma ñëw joué waat Sénégal concentré wu. Mhm. loolu moo tax ma ñëw si ñëw signé woon ñaatali six mois. Mhm. après par la suite tour Sénégal bi comme ni ngay eh, boobu moom kenn dul ko ah boobu xam naa ni sama réalisateur bi après dina dina ma ko andil rek gars yi euh, <laughs> fàttaliku tuuti euh, match boobu nga xam ne moo dox si diggante ñaatali ak euh, ak Casa Sport mais pourquoi le choix nga ñibbi si man loolu moom ma xaw a jaaxal nga ñëwaat euh, di jouer Guédiawaye bon loolu ça fait plaisir nga ñu am benn international euh, bu bu nekkoon fii di jouer daal di dem di ñëwaat jouer waat ça nous fait plaisir mais tey en tant que jeune bëggoon naa la gis si yeneen club yu gën a mag parce que tu es toujours jeune ah pour dire vrai euh, ñëpp ñun si suivre nañ la xam nañ la bu baax a baax mais pourquoi le choix nga ñëw fii nga dem jouer Guédiawaye. waaw bon choix bi mën naa ne comme dama ñëw Sénégal bon ñëw mu ñëwee sama contrat jeex. parce que maa ngi si dëkk naar yi maa ngi woon Égypte et tout après bi ma amee problème ak club bi sama contrat jeex ñu wax pour ma renouveler après nangu ma mais pourquoi ba nangoo nangoo naar yi parfois. day xaw a yi takkante bi xam nga parfois. te xam nga rek dafa xaw a métti. tamit ngay mhm. joué ci dëkk parfois ñu bëgg la arrière 3 mois 4 mois sa famille yaakaar si yow aussi. Mhm. tu préfères nga rentre nga dem sa gàlle xool looy lijjantiwaat après pour mën a. mais salaire xaw naa uti fee de fee bu ñu la bu ñu la dóoree ces trois mois da ah, ak Sénégal <laughs> léegi nag comme bi ma ne le temps may toog fii ma jàpp sama copain yu bari bi may conseillé na ma Ndiaye jàppal tànk incha ngay am mu gën ngay toog aussi te wax nañ dëgg footballeur football la am. dëgg toogee fii defoo dara aussi bu la gars yi xëy waa da tamit après da ngay reprendre à zéro. Mhm. ma ne je me dis ma ñëw jàpp tànk mhm. aussi. si mooy gën a yomb dem quoi. mooy gën a yomb dem. seetaan naa leen ñu nekkoon ci benn dynamique extraordinaire nga ñëw jàpp si mais gis nañ tam tu as des difficultés actuellement euh, pour jouer xamuñu la mooy problème bi actuellement bu nekkee mën nga ñu si defal benn résumé bu ndaw rek. waaw problème bi moom may bi may doog a ñëw dama ñëw sama premier match contre Stade de Mbour je mhm. yi <laughs> nii rek lañ comme wàllu dëgër. léegi après dama joué dix minutes de la fin. bi ma joué dix minutes de la fin bon match bi jeex. Mhm. mu commencé am benn ay coow ci côté wàcc. bis mhm. bi blessé léegi arbitre bi gars yi xam naa ne dóor ko war a genre moom mu dem ci rapport bi mhm. xam ne laalu ma ko aussi. xam nga ma dem ñu ma ci presque ay. si si waaw si si. loo xam ne vraiment bon mën naa ne moom ma gën a tardé ci ma championnat parce que depuis boobu waroon naa commencé te équipe bi dafa compté woon ci man aussi. dëgg la tardel ma foofu. taalel na la taalel équipe bi parce que comme attaquant mel ni yow en tant que ah si si benn club moom wax dëgg yalla mu nekk affaire bu ma métti aussi. Mhm. parce que tamit je pense que man bu ma ñëwee Sénégal pour jouer fi pour dooleel championnat bi pour dooleel ligue pro bi aussi. Mhm. parce que vraiment amatu ñu si pour def nañ ñu def yépp joué nañ fi jouer war fi joué nañ façon joueur bu ne mhm. mais je pense que am na yenn détails yoo xam ne tey jii boo ko nit ki war nga xamné ki kii def na. du du dafa si si raad. le président de la ligue euh, monsieur Djibril Wade. mom Wade waaw si si. moo nekk dans ligue moo yoroon. ñaatali dëgg la. Mhm. ñu ngi leen di tamit ah, ñu ngi euh, ah, yëg ah, waa deuxième division. Mhm. boo xam ne tey jii mës nañ ma am carton ak benn mhm. bu ñu demee ba yi am tamit aussi. war nañ xoolaat wala ñu woo la sax yow mais est-ce que tey woo nañ la pour togg yow pour def def ay enquêtes. si woo nañ ma def nañ enquête aussi mais comme li ma lay wax rek parfois doo comprendre aussi parce que amuñu benn preuve boo xam ne maa ko dóor. donc wax nga man moom mu wax. dëgg la. après ñoom ñoo gérer seen décision. ñoo xam seen décision mais je pense que mënoon nañu xool seen décision hmm. nañu ñu defee war hmm. parce que man mosuma fi def aussi du du moom hmm. te man lu ma si gën a mooy ki nga xam ne moo nekkoon sa président xam na sa jukkoo xam na lu baax ndax yàgg na la yor def nga si clubam lu ne mais tey kooku waroon na la mun plaider te mooy euh, président fédération bi. waaw président bi que man bi muy bi may woo moom fa ko fekk ñëw na mu ne ma mais mhm. bon dafa am leen lu ci làqatu aussi bañ def ko si yoo xam ne tey jii. Mhm. dëgg la mais lu waroon am la rek. lu waroon am la aussi. Mhm. da ngay jàpp Mhm. mais tey en tant que international tey euh, lan ngay wax tamit sa mbokk international yi nga xam ne tey euh, joué nañ ba bàyyi ou bien ñu nekk fin de carrière war a ñëw tey dooleel suñu championnat bi tey lan moo tax sax avant tout ba tey ñoom duñu am fitu ñëw joué suñu championnat bi comme yow tey fit bi nga am ñëw reculer pour mieux sauter. tey ku si mel ni tey gis nañ Stéphane Badji tam bi ñibbi si waat euh, di joué Casa Sport yow tamit nga bàyyi feneen daal di ñëw fii di joué Guédiawaye

Mm-hmm. ay ku mel ne Dame Doye tey bu ñëwee di jël ay boy gars yi di kaw kii bu ko yóbbu fu ne supporters yi mm-hmm. professionnel ñu lay saaga wala ñu lay wax loolu la ci gars yi daw rek mm-hmm. mais mais Europe tamit dañuy dal dañuy dal seen kaw waaw oh, dëgg la dañuy dal seen kaw dañ leen di dañuy dal seen kaw mais xam nga am nañu genre yoo xam ne ay légende lañ ñoom am ñoo xam dañu def ci football gaa yooyu dañu def ci football loo xam tey jii tey kenn wulee mën a fàtte aussi bu ñu fii rek joué naag diw rek loolu rek euh, rêve la quoi donc mais boo gisee ñoom duñ nangoo dugg ci détail yooyu la aussi Mm-hmm. peut-être man parce que man dama leen gis Dakar Soccer mais dama gis ne ñii war nañu jouer championnat bi ak man mii di suivre championnat bi xam naa ni booy ëppale leen dara. mais comme li mm-hmm. ma la wax rek tey bañ man xam naa ko parce que fréquenté naa ay grand yoo xam ne joué nañ ak ñoom. Mm-hmm. ñu dajante di wax yéen mooy yoo xam ne tey neexu leen. te bu ngeen fi nekk di booy aussi. ñoom ñoom ay référence lañ aussi. tey boo jàngul si ñoom tey waroo waroo wax benn mot bu ñaaw si ñoom aussi. dëgg la parce que ñooñu da nga doon rêvé gis leen. boo mën a nga bokk ñoom terrain. Mhm. loolu plaisir la daal loolu moo tax gars ñemewuñu joué quoi. waaw loolu moo tax gars yi ñemewuñu joué. Mhm. mais tey euh, nga xam ne joué nga fa nga nekkoon fa mu dem joué tey mu demoon ba nekk national actuellement mu ngi nekk euh, Ligue 2. tey ban message nga leen di lancé yow mi nga xam ne jaar nga fa xam naa ne am nga ci mbégte bu baax a baax parce que def nga fa ay ay yoo xamante ne euh, képp kuy supporter Niary Tally wala amoureux du football euh, du ko fàtte. waaw Niary Tally sama sama sama kër la foofu foofu lépp foofu la lépp démarré ah. dëgg la. sama club boo xam ne la moo. te gis naa tamit benn Ablaye Seck mu ngi si junior yi. waaw. Mhm. parce que même seen match bi ñuy joué contre GA dem naa seetaan. dëgg la man presque mën naa direct ñaataal ma daal si man aussi. dëgg la ça fait plaisir rek xam ne lañ fa defoon ba léegi moo mhm. nekk ngi fàttaliku waat. match boobu ça fait plaisir. Mhm. gisaat la nga ñëw toogaat ak paa yi say ñoo xam say papa lañu woon bi nga nekkee foofu ba léegi vraiment mu mhm. nekk affaire bu rafet dara musu fi Mm-hmm. ma leen di ñaanal aussi ñu nekk champion bi. yéeg mm-hmm. parce que fi ñu nekk deuxième place. Mm-hmm. ku xam ñaata la xam ne day jëmmal bis en fait. dëgg la est-ce a wàññi. gën leen rey jeune aussi. Demba Diop tamit dañu gën a rey bari na. parce que vraiment ñaari tali yi bu nekkee Demba Diop rek stade bi gars yi feesal ko non vraiment nga xam ne football am na aussi. dëgg la waaw mais je pense que incha allah ñu ngi ci lancé bu baax nañu gën a góorgóorlu. bu ko defee incha allah rabi yàlla dina motali yéen bi yëpp. mais tey kon ñuy waaj ñëw si terme émission bi rek objectif bi lan la bon objectif bi mooy jàpp tànk comme ni ma koy waxee rek. ñëw fii mhm. relancer wu comme que yàlla def na suspension bi jeex na commencé naa jouer. Mhm. donc jéem a profité mhm. maximum possible après nga delluwaat si activité. loolu rek waaw parce que affaire loolu la. Ah, équipe A bi nag. ko Aliou na keroog euh, buteur la solo te ñun xam nañ ni yow nga. <laughs> nee na fu fu fu ñu xam butéel fu mu nee rek ñu andi ko ñun de man de andi naa la Talla Ndiaye. waaw man maa ngi nii de. waaw mais xam naa ne gars yi daal ñoo ma bëggoon jàq xam nga rek lonk ay affaire quoi mais bu ñu ma bëggoon ma joué ma je pense que am na yeneen jërë. Ah. yeneen am woon na yeneen vraiment loo xam ah, dara ñu bàyyi la championnat bi rek yàlla yàlla yàlla baax na li ci kanam mooy mooy dàq jërëjëf euh, mbokk yi gis ngeen rek ñu doon dalal euh, Talla Ndiaye mu nekk euh, attaquant bi nga xam ne man bon man moom yàgg naa ko suivre quoi man euh, da koy suivre sax di di kontaan ci moom bu baax a baax actuellement mu ngi joué euh, Guédiawaye FC sama gars yi dem na ngeen di ko suivre maa leen ko wax Aliou Cissé yaram laajte attaquant Talla Ndiaye ngi nii Talla dañu lay bàyyi rek euh, nga tàggatoo rek ñëw tëj émission non man dama lay jaxase ak Aliou foog mu ñëw suivre la Guédiawaye <laughs> non mais di la remercier encore une fois. Mm-hmm. sama frère nga sama gain nga. dëgg la yow yàgg yàgg na yàgg seetaan championnat Sénégal. dëgg la jour mënul nax. Mm-hmm. am nga bu baax la fi nekk championnat boo seetaanee bu njëkk ak championnat bi nga xam man moom yàlla def dama daw jàng dem seetaan championnat Sénégal am na yeneen tur yoo xam ne su dama ko waxee gars yi naan non booy fa la jëlee tur ñi dëgg la waaw dëgg la léegi boo gisee sax nga xam ne championnat bi mhm. pour nga dégg sax benn tur extraordinaire sax mais bu njëkk da nga dégg ay jours yow yàgg mais gis nañ tamit euh, centre de formation yi commencé nañ am doole mhm. par rapport ak club traditionnel yi tey est-ce que tey club traditionnel yi dem ba suulu ndax euh, ndax kii centre de formation yi ndax gis nañ tey benn lu mel ni génération foot ñoo na commencé suul équipe bi Euh, ku ci mel ni jàmbaar commencé na ñëw te booy xam même deuxième division am na centre formation yi commencé ñëw. waaw mais football formation bu baax bi rek mooy mooy tax ngay def ay performance parce que génération bu jàmbaar ak yeneen équipe yi nga gis yi ñuy def ay performance même ba si équipe A bi ah booy xool même ba si équipe A bi. jour yi voilà moo leen yóbbu équipe nationale ah moo leen yóbbu petite catégorie boo gisee petit catégorie ñoo fay ëpp aussi. dëgg la parce que tamit liggéey bi bokkul. Mhm. bu ñu waxante dëgg ñoom daal jaaxaanuñu daal. jaaxaanuñu liggéey. Mhm. football dafa toll boo xam ne football business la. dëgg la dañuy teg xaalis pour gagner xaalis aussi. Mhm. ñuy ñëw di jël dañuy jël ay booy finance seen xaalis jox leen besoin nourrir aussi. dëgg la bokkut problème la détail yooyu. Mhm. mënul bokk en fait. dëgg la mënul bokk. waaw ah, dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo. waaw mais di la kontaane ah bi. vraiment mhm. yàggoon nañu ko bëggoon. dëgg la dëgg la def ne temps moo amul woon. non dañ la gën a topp sax. mais yow sama <laughs> di ñaanal jàmm di ñaanal chaîne bi xam a affaire bi fii lay xewee. waaw ah, ah, Dakar waa 221 jour championnat bi <laughs> ah, championnat yëpp ñu koy suivre aussi di ko laajte. Uh-huh. waaw di bëggee sama gars yi nekk fii yëpp. Uh-huh. waa ji xam nga moom day tàdd rek. yaa <laughs> ngi yaa ngi koy de. waaw uh, soo yëgee waa daal di gérer nii. waaw mais noonu la dëgg la dëgg Khalil ki Khalil. <laughs> maa lay siyaar bu ok jërëjëf Talla di kontaan ba. jërëjëf kontaan nañ bu baax jërë ngeen jëf euh, mbokk yi gis ngeen tey euh, Talla Ndiaye la ñu andiloon seen émission tragédie sportive du fas yéene woon rek waxtaan moom kon ni ngeen ko déggee si wàllum parcours bi nga xam ne def na ko si wàllum championnat bi ak si wàllum bitim réew te dafa bàyyi bitim réew de ñibbi si waat ci Sénégal di joué waat te ñu koy ñaanal yàlla tamit euh, bu fi joué année bi rek daal di dem yoonam parce que soxla nañ ko si wàllum équipe nationale bi di daje rek ba beneen yoon jërë ngeen